asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé tey ñu am mbégte di dalal docteur Alioune Blandin Diop moom nag xam-xamam màcc ci wàllub médecine interne docteur Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di sant bu baax di mhm. ci invitation bi. di la jaajëfal bu baax ci disponibilité bi. di nuyu auditeurs jërëjëf voilà donc docteur Alioune Blondin Diop ñu lay dalal jàmm ci sunu émission SOS santé ci Rewmi FM 97.5 yaa ngi nekk koo xam ne xam-xamam xam màcc na ci wàllu médecine interne est-ce que nga ñëw euh, ci lu gën a yaatu ci kan mooy docteur Alioune Blondin Diop sa jaar-jaar ci wàllu médecine. voilà bon man man médecin la France la jàngee ma nekkoon benn hôpital bu mag bu nekk Pitié Salpêtrière ma def spécialité boo xam ne médecine interne maanaam. may feebar yoo xam ne day day dal ay organes yu bëri ba pare mu am tamit feebar yeneen yoo xam ne maladie auto-immune malade xam nga feebar nit nit nit bu nekk day am bo boo amee jàngoro daal sa yaram day am ay gendarme yoo xam ne day xeex jàngoro mm-hmm. léeg-léeg léeg-léeg nag gendarme yooyu day dellu si sa moom la ñuy tuddee maladie auto-immune yooyu nag mooy sama spécialité ba pare ma ma am tamit expérience bu mag ci infection VIH boo xam ne virus la moo gën a tax nag may toppatoo affaire coronavirus. Euh, donc tey ñu gis ne kon euh, li nga xam ne mooy coronavirus bi dégg nañ la ci nga joxe ci say xalaat ci li nga xam ne moom mooy wàllu euh, doxalin bi ci biir réew mi ba nga waxee itam ni sénégalais dañu war a jàng di dëkk ak li nga xam ne moom mooy virus bi ñu gis ne yàggul tuuti njiitu réew mi daal di jël dogalu. daal di wàññi teggi loxoom bu baax ci matuwaay yi nga xam ne jëloon na ko. tey yow mm-hmm. ban jàngat ngay am ci mbir moomu. waaw man nag li question boobu loo am solo la parce que foog ma leeral xaw ma ndax jiitu réew mi ci li li wax xaw ma ndax comprendre ko wala comprendre ko en tout cas man li li li ma ci xalaatoon mooy loolu mooy bu fekkee ne euh, feebar bi commencé na law day am benn moment boo xam ne day law ba àgg benn niveau boo xam ne moo gën a kawee moom la ñuy tuddee pic de la maladie mm-hmm. pic de la maladie boobu bu ñu ko passé feebar bi day wàcc mm-hmm. mais joomu jàngoro bi maanaam virus bi même bu feebar bi jeexee day toog ci dëkk bi. Mhm. day toog ci dëkk bi parce que kenn xamul dafa mel nii rek. Mhm. Euh, sibiru xam nga sibiru. Mhm. palu kii euh, anophèle paludisme moo koy paludisme moom la ñu tuddee sibiru. anophèle moo koy joxe mais paludisme. day jeex a période mais léeg-léeg da ngay dem ci yenn dëkk yi. mu ñëwaat mu voilà mu am fa tamit pourtant pourtant euh, hivernage bi passé na na taw bi pare na euh, taw bi jeex na et cetera mais day continuer di dëkk ak ñun. Mhm. su ko defee ni ñi dañuy continuer di jël ay moustiquaires fekk feebar bi pourtant jeex na. Mhm. mais après day dellu si. moom la ñuy tuddee endémie. Mhm. man li ma li ñu doon sama xalaat moo di effectivement dafa mel ni coronavirus. dafa doon dafa naroon doon benn feebar boo xam ne même septembre bu jotee. Mm. day wàññiku bu baax nga xam ne dootul ñu amati ay dix wala vingt cas par jour mais léeg-léeg nga jékki-jékki rek ñu ne la Patte am na fa ñaar wala ñetti cas. Mm-hmm. ñu dem ñu confiné ñu kii ñu confiné su ko defee ni ñi li ma doon li doon sama xalaat moom moo tax mu wax ne on doit apprendre à cohabiter avec le virus. Mm-hmm. mooy dañu war a xalaat nekk léegi li ñu war maanaam ci lépp lépp matuwaay yi ñu jëloon yëpp maanaam di raxas suñu loxo di moytu di di di tisoli ci ci biir nit ñi. Mhm. di di di wàññi di wàññi di wàññi de dajaloo bu bëri bi. et cetera dox gu bëri. voilà et cetera bañ voilà di raxas tout le cetera di jël ay masques. loolu il faut ñu seen ñu xam ne que virus bi même bu fekkee ne wàcc wàcc wàcce na bu baax ci dëkk bi nga xam ne amatul ñu feebar il faut ñu continuer di denc matuwaay yooyu loolu moo doon sama xalaat. Mhm. mais il faut que ma ma ma corrigé xalaatuma benn yoon ne que par exemple ni ñu nekk nii nga xam ne pic mu nga xam ne feebar baa ngi law ci dëkk bi. Mhm. ba pare am na ay moment yoo xam ne ni mu kawee su ko kawee sax ci dëkk bi am na benn bés boo xam ne. presque dix neuf pour cent ci ñu ci ñu testé am nañu kii. Mhm. période yooyu benn dëkk accepté wul ci période yooyu ñuy jékki-jékki ci lever barrière yi wala ñu ñu wàññi ñu wàññi suñu matukaay. Mhm. loolu moom ànduma ci. Mhm. moom loolu moom ñi li tax ñu def ko beneen xalaat moo tax ñu def ko mais sama xalaat man li ma doon wax mooy il faut ñu xam ne virus bi comme chinois yi xam nañ ko ñoom dañu tam coréens yi tamit xam nañ ko xam nañ ko. te coréens yi sax na moo taxoon ma wax loolu parce que coréens yi amoon na beneen feebar bu tudd SRAS. Mhm. boo xam ne comme Covid la. mais SRAS boobu tax na ba nga xam ne ñoom. bi Covid bi bi Covid bi ñëwee bi yoon seen matuwaay boobu amoon nañ ko ba pare. c'est-à-dire ko mhm. Corée boo ko fa gis rek day sol masque. Mhm. depuis depuis depuis déjà depuis 2016. boo ko uh-huh. gis day sol masque. ñoom gel yi foog gel gel hydroalcoolique foo nekk da nga su ko defee ñoom 94 décès rek la ñu am. Mm. bare na. Mm. mais boo xool comparé ak France boo xam boo amee 24000 wala nga comparé ko ak États-Unis boo euh, mm. xam voilà loolu tey jii ñu gis ne njiitu réew mi jël na ko ci jamono yi nga xam ne. Euh, mm-hmm. eggaguñu ci pic bi parce que gis nañ ne yi ñu ngi yokk ba léegi wàccagul mm-hmm. tey rek am nañu téeméer ak ñaar fukk ak benn. Euh, ci ay donc ça veut dire mu ngi yokk te pour temps kii di ministre de la santé waxoon na keroog ni egg nañ ci pic bi donc tey mu mel ni am na. foofu loo xam ne dafa xaw a wuute daal. non non non non non àggaguñu ci pic bi xam naa pic bi moom xam naa entre le vingt et le vingt cinq ci lañ ciy moo tax bu ma doon bu fekkee noonu man maa doon conseiller di ci réew. Mhm. dama koy ne lii nga waroon def mooy jël population sénégalaise xam nga dañuy sonn nañu parce que confinement bi même bu fekkee ne respecté wuñu complètement mais ñoo xam ne mënuñ dem marché ñoo xam ne de bés bu nekk dañuy daan seen doole di wuti dépense loolu dafa ñooñu dañu sonnoon. Mhm. clairement dañu sonnoon mais. mais matuwaay yi tamit pour seen aar pour aar seen santé loon woon. Mhm. donc mu waroon def mooy comme yeneen dëkk yi ñu def cest à dangay da jël bés nekk da ngay jël sa discours nga nga waxaat waxtaan ak sa askan nga ne leen ah fi mu ne daal yaakaar naa ne pic picu picu feebar bi xam naa ay le vingt wala vingt cinq bon maa ngi leen di promettre ne que le trente et un fii ak trois semaines. bu fekkee ne continuer ñu di résister di respecter matuwaay yi barrières et cetera à ce moment-là dinaa dinaa leen proposer pour ñu wàññi tuuti tuuti tuuti mesures yi. pourtant réew yu bari loolu la ñu def comme France. par exemple exactement man xawma lu tax président bi def loolu. Mhm. parce que loolu su ko defee day jox espoir. ba pare day wane ne yow yaa ngi xalaat ne vraiment feebar bi aar na kii na la quoi. te njiitu réew moom on a l'impression que moom dafa jóg rek tëb rek def li muy def maanaam. daa mel ni daal tàgg euh, de tuddee diisoo ak sax ak ñi nga xam ne ñooy euh, personnel de santé bi. voilà bon cest à que man xaw ma foo foo wax yàlla man nekkuma en relation ak euh, ñi ñi ñi nekk ministère de la santé. Mhm. avant may intervenir daal dama leen laaj ne ñu ne non ñu am nga droit intervenir moi loolu rek laa ci xam mais li ma ci xam mooy daal vraiment. Mhm. Euh, xaw ma daal lan ban démarche intellectuelle la jël. pour àgg ci conclusion ci ci ci ci démarche boobu xëy na leneen moo a ah, moo ko kii woon mais daal vraiment man comprendre ma réaction bi ngi lire presse bi yëpp. ba léegi awma explication. Mhm. ba léegi à part politicien nga xam ne dañuy wax rek di ko jëlal di ko expliquer ne waaye nit ñi dañu sonnoon c'est vrai mais nit ñi dañu sonnoon mais mais xaalis mille milliards man bu mu ne mille milliards yi ñuy génn. Mhm. pour justement ñoo xam ne dañu seen doole dafa néew. moo tax ñu génn mille milliards yi. Mhm. ak 69 milliards yu alimentaire yeeg yooyu. oui man du ma xalaat man foogoon naa ne nag justement comme nit ñi dañu leen waxoon ñu toog seen kër. comme su ko defee du ñu mën a liggéey mais foogoon naa ne mille milliards yi dem ci ñoom pendant deux trois semaines un mois su ko defee ñu kii mais léegi lekk dégg vivre yi àggagu àggaguñu sax ci ñëpp. Mhm, àggaguñu ba pare ñu interrompre affaire bi. Mhm. man daal comprendre ko ma daal femme mhm. et puis ci li ci compliqué mooy nit ñi président de la république dafa doon loo xam ne dafa am doole ci dëkk boo gis. mais yaa ngi gis président États-Unis bi mu nekk. bu bu ñu nee def ko dañu war a def benn injection alcool pour nit ñi xaw a kii et cetera ñu ko kii mais dañu OMS dafa jóg génn ne bu leen ko def parce que président de la république dafa am doole. lu mu wax nit dañ cee teg comme téere. Mhm. donc léegi lu président wax rek il faut mu daan benn message bu leer. Mhm. te message bi xëy na président am na lu nekk ci xelam mais en tout cas ni mu génne message bi nii yoon daal leeral ko nit ñi quoi. Mhm. Euh, ma ban motivation mm, tout cas fu mu toll nii ñi nga xam ne ñooy personnel de santé bi nekk nañ ci ci jaaxle. parce que ñu ngi ñu ngi ñu ngi yokku te itamit. tey sax am nañu ñaari dese seen biir médecin yi sax dañu commencé comptabiliser wu. Mm-hmm, mm-hmm. médecin yi sax ñoom lay doon. bu mm-hmm. fekkee ne ñiy faj nit ñi bu fekkee ne commencé ni ñoom tamit am. tamit ñu ngi koy am bu baax day doy waay day doy waay. ñu faatu ci cas grave yi tey problème mu cas grave yooyu bëgg naa ñu taxaw ci docteur parce que dafa mel ni hmm. cas grave yi euh, lu ci bëri ñoom ñooy ñoom wàññeeku est-ce que tey ñun suñu système de santé kon am nañu euh, matuwaay nga xam ne tax nañu mën a jël cas grave yooyu en charge alors loolu question bu am solo la bon da ngay xam ne cas mooy lan am na cas sévère am na cas hmm. mooy koo xam ne nga jox ko seen oxygène bi maanaam li muy nooy hmm. doyul pour mu mën a dund normalement doyul hmm. mais mu ngi noyyi bu baax moom la ñu tuddee euh, hypoxie maanaam daal day day bi muy noyyi. Mhm. du ko du ko permettre bu mu dund normalement sinon day sonn lu mu def lu ndaw rek day sonn. Mhm. ñooñu dañ leen war a jox oxygène. Mhm. mais oxygène bu bari lañ leen di jox ay dix litres wala quinze litres par minute te day bëri. waaw ñooñu mooy cas sévère. cas grave nag dafa doon loo xam ne bu fekkee ne joxoo ko oxygène en deux wala trois minutes te day automatiquement mu génn àddina. loolu lépp moo gën a gaaw wala ñooñu lépp dañu ne obligé di def ay appareil boo xam ne. intubation respirateur artificiel lañ koy tuddee. Mhm. bon léegi respirateur artificiel boobu nag heureusement Sénégal commandé na ci defe naa daal ay cinquante daal lañu nar am am na cinquante lits am nañu baal potentiel bu cinquante lits. Mhm. boo jëlee Ziguinchor jël Tamba jël Louga nga jël Dakar nga jël Fann nga jël principal am nañ ci lu mot à peu près cinquante daal. Mhm. yooyu nag moom moom mooy suñu mooy suñu kii mais. lii tax ma li gën a tax ma ma ragal. Mm. mooy même bu fekkee ne am na ñu appareil yooyu da ngay xam ne koo xam ne nekk na cas grave dafa soxlo infirmière. Mm-hmm. diplômé ñu tuddee IAD infirmière anesthésie diplômé d'état mm-hmm. mu soxlo aide soignante boo xam ne parce que mënatul dara boppam parce que ñooñu. dañ leen di def ci benn espèce de coma artificiel c'est-à-dire dañ leen di nelawloo ba nga xam ne. Mm-hmm. ñoo ñu dootuñu mën a noyyi ñu bàyyi leen ñu ñu ñu def appareil bi muy noyyi seen place. Mm-hmm. comprendre nga li ma la wax. Mm-hmm. cest à boobu mooy noyyi seen place. su ko defee duñ leen mën a su ko defee duñu mën a def dara foog mu am aide-soignante foog mu am anesthésiste réanimateur. foog mu am médecin spécialiste infectiologie laal bu nekk war juróom wala juróom benn nit yoo xam ne dañ leen di topp. te il est clair que ñun amuñu personnel boobu. waaw kay loolu mooy deuxième problème. Mm-hmm. parce que appareil bi mu nga ko jënd mu ngi jar seize mille wala trente mille euros. Mm-hmm. mais mais mais Sénégal am na xaalis pour jënd na sax jënd mm-hmm. boo ko indee mais personnel bi war a toppatoo alors loolu moo gën a tax ni. kenn warul bàyyi feebar bi di law parce que bu fekkee ne am nañu mettons yàlla tere te du ñu am cinq mille. nga jël par exemple dix pour cent ou cinq mille yi nga xam ne ñoom ñooy ay cas grave mm. mooy cinq cent personnes ñoo war a dugg ci réanimation mais loolu ñun amuñu doole boobu. amuñu doole boobu c'est clair. moo gën a tax moo gën a tax comprendre ma réaction yi njëkk yi teerew mi mm. que normalement dañu a maintenir mesure barrière bi nga comme ni ko defoon ci njëlbeen c'est-à-dire am signe bu ndaw rek ñu dugal la hôpital. Mm. faj la nga génn nga wér. ñu faj la nga bëgg génn nga weer même bu fekkee ne amuloo symptôme dañ lay surveiller pendant quatre jours jours. Mm. bàyyi la sa bàyyi la nga dellu sa kër. ba pare ñuy continuer di di am di téléphoné di seet ndax tane et cetera ndax amul rechute et cetera. mais mm. nga xam ne loolu commencé nañ ko bu baax mais bi kaay ok yokkoo rek dafa mel ni dañu dépassé ko. Mm. Euh, te fu mu toll nii tamit euh, docteur dañuy gis ne hôpitaux yi ñoom dañoo submergé jamono ji parce que euh, yeneen feebar dafi am sànq rek docteur Bousso mu ngi koy wax am na ay matuwaay yoo xam ne jël nañu ko ci ba cas contact yi sax fu mu toll nii ñoom ndëgën ni tey dañ leen di confiner seeni seeni kër. exactement loolu nag man proposé woon naa ko depuis njëlbeen. Mhm. ne woon naa am naa na ay tubaab yu nekk salle résidence yoo xam ne dañ ma woo. Mhm. ma xam ne ñu woo ñoom. bi ñu xalaat ne ñu bi mu commencé ci sol yi rek commencé sëqat ba pare am chèvre rek mu wooma mais avant may ñëw déjà avant may ñëw këram mhm. ma ne ko bul génn man dinaa ñëw avant may ñëw këram fekk ber na déjà jabar yi ak ñaari doom mhm. déjà ber na leen complètement déjà depuis deux jours commencé na leen ber bi ma xoolee loolu ma woo cellule bi cellule bi woo ko ñu wax ak moom après cellule bi ne ma non kii mën nañ ko bàyyi ñu testé ko ñu testé ko fekk France la kon mu nekk benn espèce su cas contact cas suspect. Mhm. mais amul mais mu am manifestation mais bi ñu defee test bi test bi négatif. Mhm. mais dañ ko bàyyi dañ ko dugaluñu ko pour seet ci ci hôtel de. dañ ko mhm. bàyyi këram parce que xam nañ ne que moom am na kii mën na am na organisation au kër ba pare. am na institution boo xam ne mën na mën na confiner au kër. Mm. voilà loolu bu ñu ko defoon ci actuellement du ñu toll benn situation boo xam ne fi mu ne hôpital yi dañu fees ñaareel lii ma bëggoon wax mooy sénégalais yi dañu war a bàyyi dañu war a euh, bàyyi dara parce que ñoom dañu foog ne virus bi boo ñëwee hôpital forcément mu mu mu mu wàll la mais am na mm. loolu loolu amul amul du benn d'abord. Ah, fu mu toll nii dañu si bëri dañuy daw hôpitaux yi. oui ba pare am na yeneen feebar yoo xam ne parce que xam nga lan mooy gën a garaaw. Mm-hmm. bu fekkee ne ñeneen ñoo accident vasculaire cérébral mhm. wala nga am diabète bu compliqué wala nga am benn hypertension boo xam ne dañ ko doon surveiller wala nga am beneen yeneen feebar hyperthyroïde wala nga am yenn feebar yoo xam ne vraiment chaque trois mois dañu ko dañu war a contrôler pour seen dal na wala dalul mhm. mais boo boo boo ko boo demul hôpital mais kan moo lay mais affaire boobu mais mais yow nga ci dee mhm. su ko defee ñi nar a dee ci ci yeneen feebar yi moo ëpp ñi nar a dee covid xam nga moo tax ma bëgg nit ñi première loolu mooy première chose deuxième chose mooy nañu bàyyi koo xam ne da nga am feebar bi ba pare nga wér boo ñëwee sa village ñuy kon boo ñëwee sa dëkk dellu sa kër ñu lay daw wala ñu lay. di la stigmatiser ka beddi voilà est-ce que stigmatisation boo xam ne mm. vraiment ci instant yi ñu mel nii daal. nit ñi sénégalais yi vraiment man yaakaar naa ne sénégalais seen xel ëpp na loolu quoi. Ah, yeneen parce que ñenn ñi dañuy euh, bi feebaru gàcce la te moo ne feebar bi gis nañ ne ay jëwriñ ak ay prince ak ay président ak bàyyiwul kenn. oui hmm. mais man depuis man dama xalaat c'est pas que dama dama surestimer sama dëkk mais dama xam ne sénégalais ñun. yàlla mel na ñu xel boo xam ne vraiment. Mhm. bu ñu tollee ci yenn situation yi mën nañu dépasser niveau yooyu yooyu yeneen dëkk yoo xam ne bu ko mën tudd mais yeneen dëkk bu ñu amee réaction mel noonu du ma jaax mais Sénégal non d' accord. mais mhm. ñëw kii mais ku ñëw mais mais mais mais nga laajte. Mhm. mais waa ji bu fekkee ne feebar ba def nañu test beneen que négatif na. rek commencé boobu moom waajooju moom moo la gën a aar sax. keneen koo xam ne amagul feebar. Mhm. parce que moom am na ay anticorps. Mhm. maanaam am na ay gendarme yu nekk ci yaram moo xam ne xamu xam xamaguñu ko mais même beneen feebar beneen virus bi ñëwee c'est anti anticorps yooyu mën na ko xeex. kon mhm. waa jooju moo la gën a wér ba pare moo la gën a nekk ci ay dispositions yoo xam ne mën na la moo la gën a aar daal ci beneen ci ci coronavirus. kon noo dawee. doy na waa tey tey docteur Diop ñu gis ne ci matuwaay yi nga xamante ni euh, njiitu réew mi teggi na ci tànkam voyageurs yi wax nga xam ne dañu war a dëkk jóge yeneen dëkk yi ñëwaat ñoom ñooñu tey ñun xeexoon nañ ba cas importé amatutoon euh, tey jii nii est-ce que amul risque peut-être résurgence ci ci loolu euh, tey sax docteur Bousso waxaat na ci que ne ñooñu dañ leen di xool ci aéroport bi xool daal seen yaram bu fekkente ne kii ñu bàyyi la ñu dem mais est loolu yëpp nekk na lu wóor daal. man daal. Hmm. pour mhm. man daal bu doon sama bu doon sama sago dañuy xaar fii ak deux a trois semaines. parce mhm. que docteur Bousso. maa ngi koy nuyu ci ci maa ngi profité pour nuyu ko ba pare vraiment. Mhm. kontaan naa bu baax ci liggéey dès le début dafa ne cas importé comme le mars la ñu tëj affaire bi. le 4 avril. exactement ni mu ko waxee. <clears throat> le 4 avril bu ñu toogee. à partir 5 avril am nañu beneen cas importé. 6 avril beneen cas importé depuis boobu amatul benn cas importé. Mhm. kon mooy stratégie bi ñu jël mooy baax na bi ñu tëjee euh, aéroport bi baaxoon na. Mhm. ñaareel bi mooy ñu defee couvre feu bi ak confinement bi. Mhm. bi ñu defee loolu effectivement mais kon constaté nañu constaté nañu que yenn endroit yi feebar bi commencé na fa wàññeeku. mais bi ñu relâché am na benn semaine boo xam ne dañu relâché confinement bi. ci le cas communautaire yi commencé développé wu. di cas communautaire nag da ngeen di xam ne cas communautaire mën na wal ñaar fukki ñaar presque deux cent personnes. Mhm. ñaari téeméeru nit mën na leen ko. parce que moom day dox di dem rek. Mhm. day dox di dem. Mhm. te moom du xam ñu ko wal bu pare du xam ñi mu wàll parce que moom day jóg jël jël jël kaar. bu ko def bu bu pare mu dem marché. bu demee marché mais nit ñi mu dajeel marché xamu leen. xam nga bu pare mu joge fa dem luuma bu fo ba pare mu jógee fa. dem jëli xaalis bu paree mu jógee fa ñibbi këram. Mhm. avant muy jëm gëm këram mu dem seeti bàjjenam et cetera. Mhm. donc fi mu jaar yëpp ñi fa jaar kenn du leen xam. kenn du leen xam. Mhm. voilà xam nga loolu mooy pour mooy cas communautaire alors que cas contact dañuy xam ki ki ki ñu ki ñu ki ñu diagnostiqué dañu xam dañuy exactement par exemple par exemple ku jógee France nga jóge ci benn zone boo xam ne amoon na feebar bi law na fa. nga ñëw ñu testé la. mais boo jógee aéroport xam nañu ñibbi ko sa kër mais automatiquement mën nañ tracer exactement fi nga jaar. Mhm. Mhm. ku nekk ci benn bureau. wala ku ku dugg par exemple ki jógee woon ki jógee woon Italie ba pare dem dem Touba. Mhm. mais moom dem na exactement bi mu ñëwee. xam nañ ne jël na taxi xam nañ numéro taxi bi dem nañu xam nañu seeti na sëriñam mhm. bi mu jógee seeti sëriñam dem na këram mais ñi mu ñi ñu testé yëpp moom di contaminé la dix neuf personnes mhm. mais ñi mu testé yëpp moom moo wax ne fii laa jaar fii laa jaar fii laa jaar mais cas communautaire moo yomb la avant ñu lay voilà avant sax ah mais mais boobu boobu boobu tas la dëkk bi parce que mhm. dem nga fu ne Mhm. moo tax dama dem ak dikk yi ñu war ko wàññi woon wàññeeku mhm. moo tax ñu ne ñu moo tax ñu wax ni ñu toog seen kër parce que boo toogee sa kër bu fekkee ne toog sa kër ba pare ñu ñu ñu gis bi sa yaram automatiquement dañuy xam ne yow ba pare nga sol masque mhm. mais ñi ngay wàll du ñu bëri du bëri du ñu bëri bu euh, fekkee ne yaa ngi raxas sa loxo di di sol masque ba pare nga toog sa kër mais ñi ngay wàll du bëri moo tax mesure yi ñuy jël yu bees yi mu jaaxal ma quoi. Hmm. bon yàlla mën ah, hmm, parce que tey docteur li ci doy wax mooy en fait ku nekk da nga war a jël sa responsabilité jamono ji parce que. même bu fekkente ne yow aar nga sa bopp jël tous les matuwaay yi nga xamante ne war nga ko jël mais sa morom bi nga xam ne moom nga nekkal jëlu ko. kooku dalay lor nga dem yow lor ñi nga xam ne ñoom nga nekkal surtout que ñu xam ne suñu kër yi fii dañoo nekk ak ay mag ay nit yoo xam ne dañu amee yeneen feebar donc dafay compliqué. oui hmm. bi. alors loolu nag ñi question bi nga posé day indi ñaari type de réponse premièrement mhm. euh, feebar bi du mu commencé man man mi man mi docteur xam naa ne ñun dañ ko jël comme affaire u santé rek la doon la te loolu erreur la woon mhm. parce que gis nga bu demoon ci quartier yi ñu jël association sportive et culturelle mhm. ñu jël ba bàjjenu gox yi ñu jël relais communautaire ñu jël chef religieux yi ñoom ñëpp ñu sol ñu fexe ba jox leen ay information yu wér yu wóor yoo xam ne vraiment information yooyu mën nañ ko expliquer ñi ñu dëkkal. Mhm. su ko defee ñu population yooyu ñu nekk Kër Massar ñu nekk Tifikin ñu nekk ki Guédiawaye ñu nekk Dakar ñu nekk fu fu ne su ko defee quartier bu nekk da ngay jël da yaa xam noo dëkkee. parce mhm. xam nga ku dëkk ci daax dëkk ci apartement mhm. xam nga ñi matuwaay yi ngay jël. bokkul ak ku dëkk ci kaal wala ku dëkk foo xam ne benn espèce su concession la ba xam ne fekk ñaar fukki nit ñoo ci dëkk. Mhm. ci benn espace bu ndox xam nga bokk du yomb benn bi xam nga boo nekk yow fii sa ab benn appartement nga xam ne ñaar juróomi nit ñoo ci dëkk. xam nga li ngeen matuwaay bi essentiellement lan lay doon. Mhm. mooy surface yi ngeen di laal na ngeen moytu di laalante. Mhm. boo leen di wax ngeen respecté distance bi mais mais mais ci kër gi mën ngeen def attention. ba nga xam ne surface yi rek ngeen di compte ngeen ngeen fexe benn continent contaminé masque bi sax ngeen di ko tout le temps ci benn appartement. Mhm. ak mën na mën na mën na sax mën ngeen fexe ba nga xam ne. loolu doo leen soxla def loolu. et puis bu fekkee ne dafa am ku ñu wàll ci kër yi toog ngeen seen kër quatre personnes rek la ñu testé cinq personnes. Mhm. mais boo leen dëkk ci benn kii concession xam ne ñaar vingt personnes ñaar fukki nit ñoo ci dëkk ba pare ngeen am espace bu ndaw ba pare ngeen di fi ngeen di roote benn la ba pare ngeen dañu jël euh, euh, endroit yu mel noonu matuwaay bi gën a am solo mooy lan mooy saa sax raxas seen loxo ak saabu ba pare respecter distance donc ma ma ne matuwaay bu ci nekk en fait fi nga dëkk nga war ko adapté moo tax ni nga wax sànq. moo nit ñi ñoo war jël seen responsabilité bopp. ba pare mm. jël matuwaay yi approprié wu ko seen bopp. est-ce que comprendre nga li comprendre naa. Mm-hmm. voilà mm-hmm. ñoom ñëpp dañu war a approprier te loolu nag au lieu ñuy jël affaire bi def ko affaire médicale rek. dañ ko mm-hmm. waroon def affaire communautaire. nga xam ne dañuy jël ci communauté bi ba ñuy jël ay yenn gox ñoo xam ne bu ñuy waxee ak yow dañ leen di déglu. sa sëriñ bu la wax da nga koy déglu xam nga sa bàjjee bàjjenu gox bu ñëwee da nga leen di mm. sa mag bu ñëwee de da nga koy déglu et cetera ñoo xam ne vraiment. kon ñàkk impliqué boobu ñu waroon impliqué ci njëlbeen ñenn ñi moo tax am ñoo xamante ne ba tey ñoom ñu ngi ci déni maanaam ñoom gëmuñu sax ne feebar bi am na. exactement mm-hmm. exactement. Mm-hmm. léegi léegi bi ñu déggee ne yal na ko yàlla na yàlla na ko yàlla dimbali bi mu génn dégg naa démb dégg dégg naa mu ngi tane mhm. heureusement démb ci guddi yónnee na message ñu ne ma mu ngi tane mhm, mais bu ñu déggee Kouthia am na feebar bi mhm. wala ñu dégg Pape Diouf gaañu na ci nga xam ne ñoom dañu xam ne que feebar bi waa ji et cetera su ko defee bu fekkee ne gis nañ ne am nit ñoo xam ne dañ ciy génn àddina à partir de ce moment là dañ ne ah feebar bi xëy kon xëy na am na mais ba léegi li nga wax nii. Mm-hmm. am na ba léegi nag maa ngi dégg ay nit yoo xam ne ñu a feebar bi tubaab bi ñoo koy indi rek. wala nit ñi ay politiciens yi ñoo koy kii xam. Mm-hmm. wala ñoo xam ne ay commerce ñu bañ suñu commerce yi. Mm-hmm. am na ñu ne sax Auchan wala kii ñoo ko kii pour ñoom seen marché yi yàqu. lan lan nga mën a xalaat nan nga mën a xalaat ne Auchan wala ay ñoom score ñoo fexe ba xam ne ñoom su ko defee dañuy tëj marché yi ñoom seen commerce yàqu ñoom seen commerce baax. Hmm. xam nga loolu xel xel xel dañu ko. Hmm, doy nan la ñu mën a wax ci benn feebar boo xam ne mu ngi jël trois cent mille personnes maanaam trois cent junni trois cent mille junni nit ñu ñu fee ñu ñu actuellement dee nañu ci feebar bi nga ne que ne que feebar bi amul. dañ ko def noonu rek pour yàq mhm. loolu xel dalu ko. xel nangu ko mhm. mu nekk lu dooy waax tey ji am na ay termes yu bëri yoo xam ne docteur Diop maa ngi fàttali nii euh, docteur Alioune Blondin Diop mu ngi nekk euh, spécialiste médecine interne tey ñu waxtaanee feebar bi di coronavirus ci Rewmi FM ci seen émission SOS santé ñu gis ne am na docteur ay termes yoo xam ne yéen xam borom xam-xam yi da ngeen koy jëfandikoo di ko utiliser lu ci mel ni euh, immunité collective dañ koy dégg bu baax. l loolu mooy lan. voilà alors xaal ma dem la ko firi te mu lu lu gën a yomb mais bu fekkee ne comprendre lu rek nga arrêté ba. Mm, d'accord mm. bon léegi li ma sànq léegi ni sànq na maa ngi leen ne xam nga jàngoro jàngoro kii bi coronavirus wala jàngoro sida wala jàngoro boo gis boo xam ne virus la. Mm-hmm. yàlla def na suñu yaram bu virus bi duggee suñu yaram day produit espèce su gendarme boo xam ne day xeex feeb day xeex jàngoro. Mm. léegi mën na mën na mën jàngoro anticorps yooyu gendarme yooyu moom la ñuy tuddee anticorps. bon am na ay feebar yoo xam ne boo duggee léegi bu duggee sa yaram immédiatement rek day am ay ay gendarme yoo xam ne dañ koy lekk affaire bi jeex. Mm. moom lañu tuddee macrophage. am na yeneen fe am na yeneen feebar nag yoo xam ne virus la yoo xam ne ma ma gendarme yu njëkk yi du ko mën a rey su ko defee day dugg sa yaram. ba indi yenn gàllankoor yu bëri yoo xam ne ay ñoom inflammation et cetera moo mu loolu mooy détruire par exemple pour coronavirus inflammation yooyu ak ak réaction immunitaire bu sévère boobu. Mm. loolu mooy détruire xëtër bi ba nga xam ne doo waaj dootul mën si nooy. léegi mais feebaru corona mën na commencer ba nga xam ne sa anticorps yooyu maanaam sa gendarme yooyu mën na daaneel que que corona bi su ko defee euh, feebar bi mooy mooy mooy li ñi ñu tuddee porteur sain moo ñu xam ne feebar bi dugg na seen yaram. Mm. mais seen yaram am na gendarme boo xam ne neutraliser na kii feebar bi nga xam feebar bi àggul ko ci xëtër bi mm. su ko defee ñoom au bout de quatorze jours bu ñaar fukki fan ak ñeent su ko defee dañuy weer complètement mais ñooñu dañuy am ay anticorps maanaam dañuy am ay gendarme yu def seen yaram mm-hmm. léegi léegi lu ñu yaakaar ni maanaam borom xam-xam yi scientifique yi mm-hmm. dañuy yaakaar ni ku am anticorps yooyu beneen feebar bi beneen coronavirus bu ñëwee anticorps yooyu dañuy dañ koy duñu sax sax bu dugg bu duggee rek dañ koy neutraliser bu ko defee dañ koy dañ koy bloqué maanaam dañuy bloqué doomu jàngoro bi. Mhm. est-ce que comprendre nga. Mhm. waaw léegi immunité collective mooy lan mooy dafa am ay borom xam-xam yoo xam ne dañu ne il faut ñu ñu bàyyi nit ñi mu leen di wàll. Mhm. j'espère rek que borom dëkk bi ñii ñiy jiite maanaam wér-gu-yaram j'espère que bi ñu ne dañuy wàññi dañuy wàññi mesures yi j'espère que xalaatuñu loolu. bon même ñoom dañu ne bon léegi nañu bàyyi nit ñi ñu wàll parce que waa waa waa Parcelles Assainies yëpp ñu wàll leen. Mm-hmm. waa Guédiawaye waa Dakar su ko defee bu fekkee ne am nañu ay anticorps yu bëri am nañu anticorps yu su ko defee virus bi fu mu dem rek dafay fekk ñoo xam ne am nañu feebar bi ba pare feebar bi indiwul complication ba pare ñoom am nañu anticorps. Mm-hmm. léegi ñoom loolu la ñuy séntu ñu ne su ko defee quatre-vingt pour cent population maanaam. fukk ak juróom fukk ak juróom benn fukk ak juróom ñett bu fekkee ne pour cent bu bu fekkee ne am nañu euh, faible am nañu kii bi nu mu tudd ci ay anticorps yooyu mhm. virus bi day demal boppam day mel ni benn espèce de vaccination boo xam ne mhm. dëkk bi yëg am nañ ko mais nit ñi xamoon lu tax man d'accord ak théorie boobu mais ñun Sénégal am na ñoo xam ne dañoo am dañoo am yeneen yeneen jàngoro moom la ñu tuddee comorbidité Mm-hmm. am nañu ay personne âgées yoo xam ne soixante quinze ans seetlu nga ne actuellement ñi ci gaañu yëpp actuellement presque ay personnes âgées. ay personnes âgées lañu bu fekkee ne da bàyyi da bàyyi virus bi da bàyyi virus bi muy law ci dëkk bi mais ñooñu bu leen dalee dañuy de kon ça veut dire que sacrifier la euh, en quelque sorte. voilà dañu leen dañu leen di sacrifier loolu mooy première réponse deuxième réponse bi mooy bi ñu demee France xam nga France bi law na fi xam ne. deux millions trois cent trois millions de français actuellement am nañu jàngoro trois millions de français. Mhm. maanaam ñetti millions de français am nañ ko. France mu ngi toll mu ngi toll ci soixante cinq millions. Mhm. bi ñu xoolee affaire bi ñu ne ñi ci ñi ci mën a am anticorps motuñu sax six pour cent. Mhm. six pour cent maanaam juróom benn pour cent xam nga sare nañu ak quatre vingt pour cent. Mhm. léegi ñun nan la ñu bu bu ñun ñu àgg quatre vingt pour cent foog ñu bàyyi quatorze millions sénégalais feebar bi dal leen est-ce loolu xel daj na ko. xel daju ko. waaw kay. Mhm. loolu nag mooy immunité collective moo tax d'accord ma ci. Mhm. immunité collective moom adapté wu et de troisième troisième moom ñi mooy ñi ki dëkk ba nga xam ne actuellement feebar bi law na fa ci garaaw na fa mooy ñaari pays Grande-Bretagne ak États-Unis moom lañ jëloon. moom lañ bëggoon def au début dafa ne dafa ne nit ñi bàyyi leen ñu contaminé hmm. affaire bi dina dañul boppam. ak Boris Johnson mais mais actuellement Fran euh, actuellement Angleterre ak Grande-Bretagne. Hmm. ñoo ëpp ay cas ci monde bi. Hmm. ñi dëkk ñi ko essayé yëpp kiiw ñu benn dëkk moo ko essayé. mooy mooy kii mais ñoom xam nga lan lañ def dañ ko dañ ko def ba pare tester population mooy Corée. Corée du Sud mais Corée xam nga lan la def. dafa dafa ci njëlbeen bi amul confinement ba pare moom amoon na stratégie test boo xam test xam nga fi mu ne junne test la ñuy def. Mm-hmm. ñoom cent mille tests la ñuy def par jour. Mm-hmm. te ñoom quatorze millions d' habitants la ñu comme ñun Sénégal bariwuñu noonu quatorze millions wala seize millions d' habitants mais bi ñu demee bi ñu demee bi ñu testé population cent mille par jour au bout de dix quinze vingt jours un mois. xam nañu exactement ñi am feebar bi ñii nga xam ne feebar bi am nañ ko mais amuñu jàng amuñu ay ay ay ay comment ça s'appelle euh, ay ga ay ay manifestations cliniques. Mhm. ñenn ñi nga xam ne comment feebar bi muy commencé sévère ak ñoo xam ne dañu garaaw ñii ku ci nekk ñu ver la ba pare ñoom dañu jël technologie c'est-à-dire da ngay sol montre boo xam ne boo solee montre bi mhm. bu fekkee ne jege nga koo xam ne. walla lu wa <coughs> am na feebar bi rek ah. da koy détecté su montre day sonné. ne la ah hmm. sànq bi ngay dox ci bi nga dem Grand Dakar romb nga na foo xam ne am na ku ci kii est-ce que bëgg nga test. waa ji day dem hmm. immédiatement ñu testé ko. loolu de moyen la laaj ak organisation. waaw kay est-ce loolu am nañu moyen. amuñu loolu moom. Hmm. waaw kay. loolu nag loolu gis nga ne bu ñuy wax immunité collective dañ ko war a wax ba mu jeex. waaw immunité collective de voilà ma am mais nag ça veut pas dire que bu fekkee ne feebar bi jeex na Sénégal ñu def test immunologique maanaam ñu set benn test boo xam ne du moom du test parce que test yi ñu def nii test yu jëkk yi ñu def mooy mooy li nii ministre bi bés bu nekk di wane ay test génomique la maanaam dañuy set feebar bi sa yaram parce que dañuy gis ne bu fekkee ne ARN bi maanaam maanaam du noyau mais en tout cas daal mooy mooy mooy kii AD ARN ñun ADN ñoom ARN la. Mhm. moo nekk ci ci feebar bi waaw. ma mm-hmm. nekk ci ci jomb jàngoro bi bu fekkee gis nañ ko dañu xam ne exactement feebar baa ngi sa yaram mais yeneen test yu ñuy def bu fekkee ne feebar bi jeex jeex na maanaam gendarme yooyu la ñuy seet moom la ñuy test moom la ñuy tuddee test sérologique. Mm-hmm. test sérologique yooyu dañ koy denc pour la fin c'est-à-dire bu fekkee ne feebar bi jeex na Sénégal ñu ñu soog a def test yooyu su ko defee ne ñuy xam exactement Sénégal ndax am na benn espèce d'immunité boo xam ne. bu fekkee ne année prochaine jàngoro bi des dellu si na presque disons dix wala quinze pour cent de la population am nañu feebar bi. Mhm. su ko defee bu fekkee ne vaccin yi génn nañu yeneen ñoo xam ne fi mu ne amaguñu woon feebar bi ñoom la ñuy vacciner est-ce que comprendre nga. loolu mooy seul intérêt wu. mooy intérêt waaw kay d'accord mhm. parce que début bi am na ñu doon wax nañ def dépistage massif ñu am ñenn ñi jàpp que ne c'était pas euh, pertinent parce que da koy def léegi temps d'incubation bi ñooñu euh, am ko donc euh, mu nekk loo xam ne voilà exactement mhm. yoo xam ah, mais c'est bien tu as très bien compris mhm. test test massif yi kenn bu fekkee ne test sérologique la amul solo ci njëlbeen day am solo à la fin de la maladie waaw su ko defee day am benn espèce cartographie dëkk bi te da mën nañu wax ne ko Dakar am na dix pour cent yoo xam ne am nañu feebar bi am ay anticorps. ba mhm. Touba am nañu quatorze pour cent. Euh, Louga am nañu ne sept pour cent. su ko defee ñun dañuy xam comme xam nañu population sénégalaise seize millions d' habitants la. Mhm. su ko defee dañuy ne bon seize millions par exemple actuellement France xam nañu nekk ñoom six pour cent rek ñoo immunité. Mhm. trois millions de personnes ñoo anticorps. te ñoom pour a xam ne bi aar na vraiment il faut mu am quatre vingt pour cent maanaam soixante millions de français ñoo war am feebar. ñoo war am feebar mais France du ko hmm. Hmm. Euh, donc mu nekk mbir moo xam ne dafa dafa compliqué docteur feebar bi neexul a gérer parce que gis nañ ne chaque fois dafay ñëw andi beneen xar kanam boo xamante ne peut-être nit ñi début bi xamuñu xamuñu ko woon. Euh, ñu ngi doon wax que ni mag ñi kese lay dal naan du dal nit ku ñuul ak yeneen mais euh, le temps a montré que ne loolu yëpp du du dëgg ay wax la woon rek. parce que mu ngi dal ñëpp. Euh, tey jii feebar bi quand même vaccin ama amagul. réew yaa ngi mm-hmm. xëccoo ku nekk di indi benn garab boo xam ne vraiment yaakaar nga ne dina am solution. mais ba tey mm-hmm. daal amagul loo xam ne. teg nañ loxo ci lii nii mooy vaccin. Euh, peut tey jii processus bi tey naka la war a mën a demee ak yow ban peut être projection nga gis ne daal fii ak ñaata temps diir lañu war a mën a am vaccin pour vraiment feebar bi. bon d' accord bon premièrement il faut que ñu xam ne fi mu ne am na ay ay traitement yu bëri yoo xam ne am na essayé na te jëm nañu ko essayé. day mm-hmm. dégg nga dégg nga wax ci bi amoon ci affaire chloroquine ak azithromycine. Mm-hmm. voilà yooyu day wàññi que maanaam day bi. ci sa yaram. Mhm. mais xaw foo fi mu ne ay actuellement am nañu recul boo xam ne war nañ ne vraiment du traitement au virus bi quoi. Mhm. parce que ñi nekk France test ñi nekk France ñi nekk Angleterre ñi nekk États-Unis test nañ ko vraiment daal mënuñu wax ne que traitement efficace la mais pour ñun Sénégal mun nañu wax ne peut-être que euh, euh, bu fekkee ne comme ñun euh, ñi ñuy faj dañu teel a commencé traitement bi xëy na daal. wàññi na le nombre de ka yoo xam ne mun nañu évoluer ci ay cas grave mhm. mun na loolu daal mun nañ ko wax Sénégal bon ça c'est la première chose mais mhm. amaguñu traitement amoon na beneen traitement boo xam ne affaire u Ebola la doon faj mooy remdesivir te boobu tamit testé nañ ko Chine testé nañ ko yeneen dëkk boobu tamit amul vraiment amul efficacité boo xam ne pour ñu bo c'est-à-dire garab pour ñu xam ne efficace na il faut bu ñu jëlee ñoo xam ne vraiment frais boo xam ne dëgg dëgg ñu jox ko ko. Mhm. automatiquement ñu tane ba pare du doon deux wala trois personnes dafa war a doon la majorité ci ñoo xam ne dañu feebar. Mhm. te te garab yi ñu testé ay vingt pour cent maanaam boo ci jëlee boo ci boo jëlee boo jëlee dix personnes ñaar rek ñoo ci vraiment tiré ci affaire bi su ko defee du ñu mën a wax ne que traitement bu efficace. Mhm. bon loolu la ñetteel bi mooy. effectivement am na yeneen garab yoo xam ne testé am na ay garab yu sida yoo xam ne testé nañ ko ba léegi moom tamit résultat yi taxu ko taxu ko baax noonu quoi. Mm. am na ñu ñoo xam ne tane nañ ci am na ñoo xam ne vraiment kii wu faj leen mm. bon am na yeneen traitement yoo xam ne ci immunologie ay moom yoo xam ne anti TNF anti CD20 yoo xam ne d'abord dafa cher te yooyu traitement kenn mënu ko jox population bi mu jeex donc léegi vaccin bi rek fi mu ne moom mooy kii mooy mooy mooy loo xam ne. boo mën na fexe ba aar planète bi yëpp maanaam àddina bi yëpp. Mhm. bu fekkee ne am nañu vaccin vaccin boo koy produire doo ko produire ci ay da koy produire ay milliards de doses. Mhm. voilà bu ko defee bu loolu rek loolu. mais vaccin fi mu ne pour ñu am vaccin efficace am na benn laboratoire bu tudd Sanofi bu nekk France actuellement mhm. mu ngi ne que xëy na d'ici le mois de décembre daal. incha allah dina am benn vaccin boo xam ne dina ko mën bon. waaye de États-Unis ñu ngi di xëcc seen boor. waaw kay et voilà dégg dégg nga wax ci génn mm-hmm, mm-hmm. États-Unis nee na bu génne moom moom ñoom ñoo koy njëkk jënd <laughs> mm-hmm. bon fi mu ne da amoonu ci li ci am amaguñ ci li ci wóor mais ñun yaakaar dañ ne OMS comme ñëpp la fi dekkal ñun yàlla def nañu ba nga xam ne alhamdulilah ñii ñii ñii ñii gaañu ak ndax ndax feebar bi taxu ko bëre ci Afrique parce que fi mu ne ñu ngi ci ay deux mille huit cent cas de décès boo ñu comparé France wala États-Unis wala ki nga xam ne fa États-Unis quatre-vingt mille France ñu ngi ci vingt-sept mille ñi a ngi ci trente mille ñi ngi ci quarante mille ba vraiment daal actuellement ñun alhamdulilah kon fu mu ne ne yàlla na jëm kanam fu mu ne daal feebar baa ngi commencé law ci dëkk ci ci Afrique parce que ñi ñi presque nañu àgg ci presque car vingt vingt mille wala trente mille cas mais mm. yàlla def na ne la fu mu ne alhamdulilah ñi ciy ñi ciy génn àddina barewuñu yal na jëm kanam. te pourtant de ñoom ñoom yooyu ñu ngi doon wax nañu xaar ay cas yu bëree bare. kii en tout cas man daal ONU xam na fu mu jëlee information. Mm-hmm. donc xam lan lañu xalaat. Mm-hmm. comme amuñu système de santé yu baax. Mm-hmm. ñu ne feebar bi bu ñëwee. ci ci ci forcément boo amul système de santé xam nga amoo réanimation. amoo ay ñu ñi ñu formé. amoo ñoo am na ay garab. amoo foo xam ne da ngay conserver garab amoo ñu voilà boobu amoo ñi yoo xam ne am na ñu compétence yu bëri ñoo xam ne par exemple Sénégal ñun tànne nañu am na pays yoo xam ne ay dëkk benn anesthésie wala ñaari anesthésie rek dañu am. Mm-hmm. su ko defee ñooñu fekkee ne feebar bi dugg na ci dëkk bi ñi ñi ciy dee dañuy bëri. dañuy bëri mais actuellement yàlla musal nañu te yàlla na jëm kanam. yàlla jën jëm kanam mais lii ma bëgg xam mooy li li ko war a xam ne mooy bu fekkee ne vaccin bi génn na. ah su ko defee ñun dañuy jël ñoo xam ne amaguñu feebar bi Sénégal wala Afrique ñoom la ñuy vacciner. Hmm. su ko defee nag vac euh, vaccin bi su ko defee feebar bi bu dellu si aate parce que ñun moom la ñu yaakaar parce que feebar bi day day mais mën na dellu si comme SRAS lay doon quoi. Hmm. SRAS xam nga SRAS 2003 la woon. Hmm. après ñu am beneen poussée 2015 beneen de 2017 comme yaakaar kenn mënul wax ne que SRAS ou kenn mënul wax ne que Covid bi. du dellu si année prochaine wala du dellu si dans quelques années. Mhm. mais bu fekkee ne population bi yëpp am nañu vaccin ñoom ñëpp takk nañ leen à ce moment là même bu fekkee ne Covid bi ñëw na day mel ni grippe xam nga France chaque année mu ñëw. Mhm. mais bu ñëwee ñëpp euh, par personne képp ku am euh, juróom fukki at wala soixante cinq ans rek dañ lay ñax dañ lay vacciner ak affaire bi bu fekkee ne vacciné ñu leen su ko defee même feebar boo koy def du doon feebar bu garaaw. Mhm. Euh, tey docteur Ah, su ko defee nag ñun li ñu yaakaar mooy Covid bi bu fekkee ne ñëw na mais bu fekkee ne am nañu ci vaccin dañu yaakaar ne que même bu fekkee ne dellu si na maanaam ñi ciy ñu bëri. Mhm. waaw euh, te lan mooy sa xalaat docteur Diop ci tey lu mel ni euh, tey médecine traditionnelle bi lu mel ni artémisia par exemple. Mhm. li nga xam ne jot na ko fa ci lan moo ci sa jàngat. bon man man dama gëm affaire du pharmacopée man dama xalaat ni mel ni Madagascar. ay dëkk yu mel ni même île de la Réunion ñooñu nga xam ne vraiment ci Afrique la ñu bokkoon. Mhm. ñoom yàlla may na leen ay ay ay ay maanaam seen seen seen forêt wala seen kii seen seen am naa plante am na ay vertus thérapeutiques c'est-à-dire loo gis rek. Mhm. seen garab garab boo gis rek presque garab boobu mën na doon benn médicament. Mhm. presque garab boo gis mën na médicament man li ma li jot sama xalaat mooy OMS. wala africain ñun. war ñu bàyyi bu ñu amee benn garab boo xam ne garabu wolof la wala garabu traditionnel bi. Mm-hmm. ñu nekk du garab bu baax. wala di ko ñàkkal fayda. Mm-hmm. voilà di ko di koy ñàkkal fayda mais li ñu war a def li ñu war a nangu mooy bu fekkee ne garab ñëw na mais ba nga xam ne kii par exemple xam ne ne xam nga ne garab bi par exemple maanaam par exemple puy wala wala kii wala ta wala wala kii tamarin. Mhm. wala wala li ñuy tuddee nabedaay. nabedaay. Mhm. boo ko jëlee nabedaay boo ko jëlee koo xam ne dafa amoon kii wala wala même bisaab ku am mhm. tension. man man mii nga xam ne docteur la man xam naa man damay recevoir fii sama cabinet. ñoo xam ne bisaab rek la ñu naan. wala dute mais seen tension day wàcc. mais léegi le problème c'est que tension bi ni mu wàcc day bëri. Mm-hmm. su ko ñoom donc lii ma lii ma bëgg mooy bu fekkee ne bisaab am na vertu yoo xam ne day wàññi tension mais ñu ñu dosé ko yóbbu ko ci ay laboratoire yu xareñ mm-hmm. parce que yàlla xam nañ ne Sénégal alhamdulilah am na ay laboratoire yu mel ni Institut Pasteur INSEP et cetera mm-hmm. ñu jàng ñu jàng ñu jàng garab bi exactement cette ban dose moo moo moo méngoo ak sa ak sa feebar ba pare ñu xam ndax ci suba si nga koy jël wala ci ngoon si nga koy jël. Mhm. su ko defee mu ko ci comme yeneen garab yi mais ñoom dañuy téye seen garab nee na naanal lii rek. Mhm. te garab bi mën na am yenn complication yoo xam ne mën na indi ay feebar par exemple am na seen am bi mel man nekkoon naa caat assistant technique foofu am na benn kii yoo xam ne ay faral garab wolof lañ koy jël tamit. Uh-huh. mais garab bi waaye boo xaw ki ñu ko doon jox dafa amoon feebaru xel. Mhm. effectivement tane na ak feebar bi mais malheureusement feebar garab bi dafa provoquer insuffisance rénale hmm. mu tane ci feebar ci feebaru bopp bopp bi ba pare ñu obligé ko dialyser parce de hmm. dafa toog ci benn village pendant sept mois di naan garab di naan rek te fekk moom xale la oh. buy naan garab bi bu tane na tane na gaa moom. ci mm-hmm. affaire xel bi moom tane na. malheureusement mu am complication après mu jël garab bi. Mm-hmm. man mu yóbbu ko mu yóbbu ko Paris. mu étudier ko mu mu yóbbu ko ci benn laboratoire ñu étudier ko ñun effectivement dafa mel ni anti-inflammatoire mm-hmm. c'est-à-dire dafa dafa am toxicité rénale. xam nga lool xam nga loolu am na lu ko gën c'est-à-dire buy faj lii ba pare di indi yeneen gàllankoor. am na lu ko gën moo tax médicament traditionnel yi man li ma bëgg mooy. ñun africains yi état africain yi génn ay laboratoire yoo xam ne la se liggéey bi yëpp day doon liggéey boo xam ne garab bu jóge ci àll ñëw ñu testé ko transformé ko en poudre dosé ko testé ko ci ay ay ay ay mala d'abord ay animaux yi d'abord mhm. après ñu testé ko ci nit même testé ko ci nit ba pare ñu xam exactement ban dose lañ koy jox su ko defee dañuy jël poudre bisaab mhm. wala poudre buri ñu ne de ñaari cuillère fu cuillère ñaari ñaari kudd boo ko naanee. Mhm. suba ñaar ngoon dina set que lii dina tane lii dina tane mais bul dépasser dose bi. Mhm. loolu rek mooy problème bu. garab problème bi ñu leen di reprocher. Mhm. voilà mais man euh, li lii sama xalaat mooy il faut de plus en plus surtout yenn feebar yu bees yi génn. ay ñoom Covid ak affaire yooyu. wóor na ma di garabu Afrique moo ko naan moo faj. man loolu daf ma leer. Mhm. moo tax Covid organique bi ñëw ak artémisienne bi artémisienne xam nañ ko depuis longtemps comme ni ko gars yi bindee ci journaux yi sénégalais. Mhm. depuis mille neuf cent soixante quinze wala quatre vingt am na ñu xam feebar ñu xam artémisienne. Mhm. te beneen dérivé artémisienne moom la ñuy utiliser pour faj pour faj jàngoro kii kii nu mu tudd ci paludisme actuellement kenn kenn kenn dellutul ni vaccin de. léegi artémisienne rek la ñuy jël beneen artémisienne la ñuy jël mais artémisienne la ñuy jël. mooy mooy mooy moom la ñuy tuddee ACT moom mooy faj palu mais lii mu loolu feebar garab boobu moo tax paludisme bi wàññeeku bu baax ci dëkk bi ci mm. ci ci ci moom ci Afrique actuellement mm-hmm. bu njëkk bi bi may ay deux mille trois deux mille quatre paludisme bi un million et demi de personnes la doon rey at bu nekk léegi mm-hmm. wàññeeku na nekk na cinq cent mille mm-hmm. te mu gën a gën am nay dëkk yoo xam ne presque air paludisme bi éradiqué nañ ko c'est-à-dire amatul sax kaawu palu actuellement ci dëkk yooyu. d'accord mu nekk lu am solo. Euh, li ñu dese ci waxtu bariwul docteur Diop. Euh, peut-être euh, mm-hmm. point bi mu bëgg a terminer moom mooy masque yi. donc masque yi ñu gis ne daal fu mu toll nii maanaam fabrication artisanale bi ba nga xam ne daal ñu ngi koy defar fi moo bëri na torop bu ci nekk yaa ngi ko ciy mm-hmm. gis. mais mm-hmm. est-ce yooyu tey efficacité am gar gar maanaam garanti na. voilà alors question bu am solo la bon léegi masques yi dafa am ay ay dafa am ay ay marques. Mhm. masques yi ñuy fabriqué mooy masques yi fabrication locale mooy nga xam tailleur yi ñoo koy def il faut que ñu ñu ñu ñu encouragé tailleur xam nga lu tax parce que masques yooyu boo ko solee bu fekkee ne doomu jàngoro bi ñëw na ci yow. parce que prenez ay soixante pour cent c'est-à-dire bu fekkee ne cent pour cent la quarante yi rek ñoo mën a jàll mais bu fekkee ne. ki nga jëloon di wax ak yow ki la nga am na jom jàngal bi ba nga moom sol na masque même bu fekkee ne masque masque tailleur yi lay sol ah. mm-hmm. mu le fait que muy wax di ay tufli di génne ay kii tufli duñu su ko defee ñaar yéen ñaar boo leen solee masque même bu fekkee ne masque kii bi la masque te masque tradi fabrication locale bi mm-hmm. su ko defee da ngeen di aaraan kon yéen ñaar boo leen boolee cent pour cent protection ngeen di am comprendre nga li ma wax barrière mécanique lay doon. d'accord mais mm. yooyu da nga ko war a changer c'est-à-dire da ko war a bés bu nekk bu fóot ko. wala mm. boo ko sori ñaari fan nga fóot ko et cetera. mais dañuy gis fii ne bon dañuy gis masque yu yu tilim yu xaw a doy waax tamit. waaw kay mm. loolu nag nañ ko comme masque yoo xam ne dañ koy maye wala cent francs wala deux cent francs. nit ñi nag nañu fexe daal ba am ci ñett quand parce que loolu moom. ba pare di ko fóot mais bu nekk. parce que bu fekkee ne fóotuloo ko. yow yaa ngi amee jàngoro bi nga bàyyi ko sukki. Mhm. boo dindee boo boo boo dindee sa masque day nekk sa loxo. Mhm. après nga jël sa loxo teg ko ci benn poignée su ko defee même bu fekkee ne du tuuti boo la wàll nga wàll keneen ci parce que waa ji bu laalee poignée wala bu laalee sa sa télécommande wala bu laalee sa téléphone mën nga ko wàll. Mhm. su ko defee masque yi fokk ñu ci ko ñu ñu koy ñu koy raxas ñu koy posé su nekk. ça c'est la première chose. deuxième deuxième masque yi mooy masque chirurgical mooy masque yu vert yooyu la yooyu moom. ñun bi ñu nekkee hôpital dañ ko doon sol pour bu fekkee ne dañ dem ci kenn koo xam ne moom dafa feebar nga xam ne yow yaa ko mën a wàll parce que moom dafa nekk ci benn niveau boo feebar boo xam ne dafa garaaw ba nga xam ne yow yow ngi gën a yow ngi jógee boo indee benn feebar yaa mën a wàll yooyu yooyu mooy masque yu bleu yi wala yu yu weex wala yu yu yu vert mhm. yooyu mooy masque chirurgicaux mhm. mais yooyu mais bu fekkee ne ñaar yéen tamit ñaar yéen yow nga sol ko man ma sol ko même bu ñuy waxante du ma la wàll doo ma wàll. Mhm. que maa ngi lay aar yow yaa ngi mhm. bi mooy mooy mooy yoo xam ne normalement chirurgiens yi ñoo ko ñi nekk hôpital ñi nekk ko war a xool. Mhm. ñoo ko war a sol <coughs> mooy masque bu euh, ffp moom. <coughs> moom moo exactement baax pour coronavirus parce que boobu quatre vingt quinze pour cent lay bloqué coronavirus cest dire bu fekkee ne yaa ngi fekk faire foo xam ne <coughs> daal bu fekkee ne mm-hmm. yaa ngi nekk foo xam ne mm-hmm. corona baa nga fa wala kenn wax yow suuf yi day naan la wàll bu àggee ci masque bi def parce que bloqué mais yooyu dafa cher waaw dafa cher ba pare ñaareel bi toutes les six heures trois heures à six heures ko chargé. loolu xam nga bu fekkee ne masque yi jar mille huit cent. Mm. moom du ñëpp ci mën a jot moom. voilà ñëpp mm. ñëpp mënuñ ko waa hôpital rek ñoo ko. mën day metti. Euh, docteur dernière question maa ngi doon wax sànq dernière mais am na boo xam ne foog ma poser ko. mooy mm. euh, ci koor yi fu mu toll nii euh, nangu nañu pour ñu rapatrier. koor yi euh, tey jii loolu ban danger moo ci mën a am bon alors loolu moo te question bu am solo mhm. normalement normalement bu fekkee ne matuwaay yi ñu war a jël pour pour pour suul kii c'est-à-dire bu ñu ne xam nga France léegi ku am feebar bi dañ lay ci benn kees mais avant ñu lay dugal ci kees dafa am ay préparation yu ñuy defal bu fekkee ne dañ lay fekk def yenn préparation yoo xam ne même bu fekkee ne naroon nga wàlle parce que ni nga ni nga war a xam mooy néew néew koo xam ne corona moo la moo la moo bi mën nga mën continuer di mhm. yeneen feebar yoo xam ne par ku dégg sibiru xam nga sibiru boo na seeram doo mhm. wàll kenn mhm. mais mais euh, coronavirus ak euh, sida da doon ay feebar yoo xam ne boo ko amee même boo dee ak wala Ebola surtout Ebola. même boo da ngay continuer di wàllaat. bon léegi nag nit ñi comme boo dee da ngay dem ci kii sa sa néew bi nga koy fóon di jooy et cetera ñoom dañuy benn dañuy bañ feebar bi di law ci méthode yu mel noonu. su ko hmm. defee lan la ñu wax ni comme nit képp ku am corona dañuy perte corps bi ba pare am nañu ay traitement yu ñu koy defal ba pare ñu dugal ko ci boîte ba pare boîte boobu bu ñu ko solee kenn dootu ko abati droit di ko ubbi. Hmm. bon léegi léegi ñun OMS mosul wax ne ko ko corps bi amul droit voyager. Mhm. mais Sénégal dafa jëloon ay matuwaay ba pare ay précautions décision ne que corps yi ñu ñëw. mais ko bi ñu bi ñu si bi ñu bi affaire bi ba pare dem ci ci borom xam-xam yi ak OMS laajte gisuñu foo xam ne bi mu dañ ne daal corps bi waroon ñëw mais. li nit ñi war a xam mooy fekkee ne corps bi ñëw na kenn du ko mën a gis. te da ngay mm-hmm. da ngay jël ker bi mën nga ci def ay ñaar ñu suul ko. Mm-hmm. te dégg naa ñi ñi jiite bool wàllu wàllu sa ki kii wër gu yaram maanaam ministère de la santé ñoom nee nañu sax cimetière bi ñu leen nar a yóbbu bokkul ak cimetière bi ñu bu Yoff wala ñeneen. Mm-hmm. voilà loolu lañ daal lañ ci xalaat. su ko defee nag man d'accord naa pour ñu indi corps parce que. quand même métti nag nga am sa koo xam ne moom par exemple immigré la woon sa jëkkër la wala sa doom la wala sa papa la mu nekk bitim réew mu gaañu nga xam ne moo leen doon yónnee xaalis di leen toppatoo et cetera mu gaañu nga xam ne corps bi dootoo ko mën a gis parce que yow mënoo am visa pour dem seeti corps bi doo xam sax ci yan condition kenn hmm. kenn ko julli kenn ci quelle condition dañ ko enterré et cetera loolu métti loolu métti na hmm. voilà moo tax ma xam ne vraiment décision bi ñu jël bon nañ ci ne na Sénégalais yi xam ne matuwaay bi foog ñu jël ko pour aar ñi ci def mais bu ñu nañ xalaat ne que quand ñëwee il ñu jël ay mesures yoo xam ne presque du mën a nekk daal néew normal daal. Mhm. du mën a nekk ay su ko defee def mais ñu mën a am place boo xam ne bu ñu bu nit ñi saa yu demee par exemple da ngay dem armée la di nga mën a dem ci sa papa wala sa frère wala sa sœur wala dem di ko ñaanal. Mhm. voilà. voilà euh, docteur Diop euh, yegsi nañ ci njeexitalu émission bi ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk auditeurs yi. man daal maa ngi sant bu baax auditeurs yi. Hmm. maa ngi xalaat ne mbas bi dëkk bi bi ñu dal actuellement daal. yàlla moo ñu ko teg. mais ku ci nekk ci ñun. boo jëlee sa matuwaay. ba pare nga comprendre bu baax feebar. Hmm. ni muy wàlle nan nga def ba aar ci. nga jël yooyu nga partagé ko ak ñi nga nekkal. yàlla mën nañ ci defal sutura fii ak quelque semaine ñaareel bi mooy bu leen bàyyi te bu leen tàyyi ci raxas seen loxo ak saabu saabu mhm. Marseille moom tooy na su sëkk ak barke. Mhm. deuxièmement ku ci amul saabu na nga jël gel yi. Mhm. deuxièmement ku ci tufli ku ci ngeen ñu bàyyi même ci bu ñu nekk ci weeru ko. ci tufli ci biir ci parce que tufli bi da ngay xam ne fooy tufli virus bi daf toog lu yàgg. xam nga. donc léegi il ñu bàyyi tufli bi ci ci biir ci biir euh, ci at ci kii bi te dans la rue ñu tufli ci biir tali bi nii ñu koy def même bu fekkee ne nekk ci weeru koor. Mhm. troisième bi boo tussee lii wala ngay kii nga jël sa coono nga nga fexe ba def ko. masque mhm. yi bu leen ko bàyyi. Mhm. ba pare li ci gën a am solo mooy fekke ne da ngeen di dajaloo bi ngeen moytu ko. fi mu ne li ci des bareetul. ci ak trois semaines wala un mois rek yàlla mën nañu mosal ba ñu génn ci feebar yi complètement incha allah bu fekkee ne dañu bàyyeeku fekkee ne dañu bàyyeeku di euh, automatiquement ñi nar a am cas communautaire dañuy yokk ci dëkk bi et su ko defee dañ feebar bi day continuer di law vraiment man daal maa ngi ñaan auditeurs yi mhm. képp koo xam ne am nga information bi du gouvernement du président du OMS kenn mënul fexe ba feebar bi feebar bi génn ku dul sénégalais yi ci boppam. Mhm. ñu comprendre ni ñuy wàllee affaire bi ba pare ñu jëlu affaire bi jël ko seen bopp approprié wu seen bopp ba pare di ko appliqué seen dëkk ak seen kër. Mhm. loolu laa laa laa bëggoon kii quoi. Mhm. maa ngi di jaajëfal bu baax. en tout a baax docteur Blondin Diop mu nekkoon waxtaan bu am solo. am na lu bari loo xam ne jàngaat kon jàngaat nañ ko ci encore une fois ci feebar bii di coronavirus comme ni ma ko waxee encore une fois moom moom. Euh, ba tey woneegul boppam carrément donc euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax may fàttali nii yaa ngi nekk euh, koo xam ni xam sa xam-xam dafa màcc ci wàllub médecine interne da ngay yëngu tamit bu baax ci li nga xam ne moom mooy wàllub viage wàllub rhumatisme ak yeneen i mbir yoo xam ne dina am yeneen jotaay yoo xam ne dinañ ci am occasion waxtaan si on espère incha allah voilà merci beaucoup ñu jaajëfal mbokki auditeurs yi ñu doon déglu ci la 97.5 matu Diallo moo nekkoon ci kaddu gi di leen euh, dig daje vendredi prochain ci beneen euh, numéro ci euh, Rewmi FM 97.5 jërë ngeen jëf